salaamaaleykum man la Tamsirou Diouf yéen a ngi déglu si rajo baal ma si musique bi mu wax ma doon dog noonu xam ngeen ne si fan yii yëpp fa semaine yii yëpp ñu ngi doon xam ngeen ne tey xew-xew bu mag laa ñu am gars yi fi noonu Sénégal mooy Sokone TV ñoom DJ Mag ki nga xam ne suñu collègue la di yaa ngeen ko di ko dégg si seen rajo fii nii mu leen di indi émission yu ees yu nekk defi naka lañ koy teesa nag tey moom naka moom nga xam ne moom moom moom Sokone télévision télévision anniversaire bi yéen a ngi ko doon déglu nag si lifin bi nag am si suñ jingul bi foofu noonu si fan yii yëpp après duggoon naa si tey si si bëccëg si nii about fi about an hour ago pour ñu fàttali leen wax bi xëy na boobu noonu gars yi nag lifin nag ñu ñu ngi foofu Sokone foofu di célébrer event bi foofu noonu ku ma am si laan bi mooy DJ Mag DJ Mag man la Tamsirou Diouf yaa ngi yaa ngi yaa ngi live si seen rajo maa ngi laa congratulé di la félicité si sa anniversaire bi Sokone TV la nga def.
ñu ngi rek sant yàlla bu baax a baax Tamsir di ngi nuyu bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi déglu rajo bu mag boobu di Séré rajo bi nga xam ne li ko yitteel mooy sénégalais li ko yitteel mooy Gambie li ko yitteel mooy Afrique li ko yitteel mooy fépp fu doomu Afrique nekk rek ñu si lépp lu muy yëngatu si loo xam ne rek maanaam royukaay la rek rajo bi de déglu na ko gunge ci tënk loolu la di lay sant di lay gërëm bu baax a baax Tamsir Makayre Ndiaye la ñu gën koo xam ne si di jëma.
jërëjëf Makayre Ndiaye kon nañu dugal lifi naka yu waxtaan yow xam xam xam ngeen ne lifi naka lañ koy teesa loolu ma la njëkk bëgg a laajte mooy Sokone TV yow kenn nga ko kenn nga ko sos yow kenn nga kenn nga fondé Sokone TV ak lan mooy la la tax nga indi Sokone TV bala ñu dugg si waxtaan bi anniversaire bi ak lan moo fay xew yëpp dama bëgg ñu dellu si Sokone TV lan mooy bisionam ak kenn nga ko sos yooyu noonu loolu ñu mën a waxtaanal loolu ñu mën a wax si yooyu
waaw jërëjëf Tamsir Sokone TV kañ daa ko sos 2015 maanaam weer wi ñu nekk mois de juin le premier juin laa ko taxawal 2015 li taxal nag ma taxawal Sokone TV man depuis 2005 maa ngi si rajo yi ak télé yi di yëngatu tey man itam gannaaw doomu Saalum dëkk Sokone ma ne nag naa taxawal benn rajo bi ma taxawal bu ma buggee taxawal rajo bi aw ma moyen yi aw ma ku ma jàppale mu am benn kilifa koo xam ne dama toog wax ko te kooku bu ma tegoon loxo rek man dem na ndax somme bi sax ay huit millions la woon léegi moom jàppalewul ma bi ma jàppalewutee ma ne nag naa dem taxawal Sokone TV si laa commencé créer Sokone TV 2015 le premier jan juillet bi ma ko taxawalee ba pare nag ma commencé nag di filmer ak mobile phone yi ni téléphone bi may filmer ak mobile phone di filmer ba mu yàgg ma dama dem ba dem ba mu yàgg ma ne buñ ma jégaleen na mu ngi dagg ma ne léegi lépp luñ ma tey léegi damay bugg di jël di koy dajale pour ma am matériel ci laa commencé nag di jënd ay computer di jënd ay yenn yenn matériel yi nga xam ne mënut a ñàkk ba am sama benn caméra bopp man naa ko jënd sama bopp kenn joxul ma ko ma jënd ñaari drone yoo xam ne dañ dee filmer si kaw dañ dee jël image si kaw ma commencé aussi yàlla dimbaleen ma moment bi may wax ak yow Tamsir lu toll dix mille abonnés ñoom ñoo nekk si sama chaîne ñoo xam ne dix mille abonnés ñoom ñoo nekk si chaîne bi di may di di di ànd ak man te may dem fu nekk nag may dem fu nekk partout fu nekk lay dem si dëkk yi yëpp lay dem aussi si région yi yëpp lay dem si tënk daal loolu loolu.
waa xam nga wifi naka yo waa su yow yow obviously yaa nga si ci journalism yaa nga si yaaguloo si wante yaa nga si style wante li fi naka Sokone TV obviously wax nga ne doomi Saalum ak li wante lan mooy vision yi lan nga ñu mën a wax ne moom mooy vision yi Sokone TV ni te set media house bu nekk lu ñuy wax media house mooy télévision mooy radio am na lu tax mi jóg gannaaw loolu noonu bi nga defee yow bi nga jàkkee si si liggéey bii nii ngay def nii nekk journaliste lan moo taxoon nga sos ko loolu fi nga xam ne mun ngaa wax ne ok lii lañ bëgg a concentré si liggéey bii lañ bëgg a def comme ni comme ni séeréer rajo ñun cosaan moo ñu cosaanu séeréer moo ñu ñor yow nag lan nga mën a wax ne moo la moo tax nga sos séeréer rajo mission bi mission bi.
waaw benn benn la Sokone TV ak séeréer rajo benn la ñoo bokk ndey ak baay. léegi boo gisee Sokone TV ma taxawal ko. mooy que ne Sokone TV tey dama gis ne xibaar yi lii nga xam ne moom moo nekk fii si Sokone ni ñu koy war a jàppee jàppee wuñ ko ni ñu war a doxalee xibaar yi doxalee wuñu ko da ngay gis fii ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi si ay jafe-jafe doo gis jamais ku si wax doo gis kenn ku si wax parce que nag. am na woon nañ ay journaliste mais daanaka ñooñu damay wax ne taluñoon sax gox bi taluñoon gox bi moom moo tax ma ne man nag naa taxawal télé boo xam ne en ligne la nekk boo xam ne dina dina dimbale askan wi nga xam ne ñu ngi fii si biir Sokone maanaam gunge leen si ay xibaar yu wér te wóor mais nekkuñ nag télé boo xam ne day jël ay ay ay ay mbooti jàmbur di koy teg wala ay nit ñuy xuloo ki xeex ñu dem jël leen loolu loolu ñun duñu duñu yëngat si loolu trois cent et quelques vidéos moo nekk si biir Sokone TV mosoo si gis benn vidéo boo xam ne ay saaga la wala uñi mbooti jàmbur wala wax leneen ak leneen parce que communication dafa am lu li nga xam ne moom la la yoon wax ngay defee communication accident sax boo koy jël dañ la ne la amoo droit dem jël nit ki photo ko mu ne fang nit ñi di koy gis mu gaañu wala leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñun loolu si côté boobu la ñu dañ ne communication autrement loolu moom moo tax ñu taxawal Sokone TV chaque année.
loolu def si ay dëkk pour wax la rek ne la daal pour wax pour wax la ne la daal si tënk maanaam boo gisee ñu ñu ñu ñu ñu taxawal ko moom mooy que ne nañ joxe xibaar bu wér te wóor surtout askan wi nga xam ne mu ngi nekkee fii nii.
loolu lu loolu lu am solo li nga wax ni te am na ñoo xam ne li fi nekk moo tax lu lu ñu wax ci anglais rek mooy li fi nekk soo gisee loo xam ne li li nga xam ne yaa ngi ko bëgg a wante gisuloo ko nga créer ko sa bopp loolu moo taxaw ñu taxaw ñu taxawal seen rajo ak seen réseaux sociaux te loolu li nga moom li nga wax li nga wax exactement man understand comprendre naa ko bu baax a baax a baax a baax li fi naka lañ koy tees sax yow comme ni ma la wax rek yaa nga ci journal ci journalisme loo ñu mën a wax yow lan lan moo la inspiré nga dugg si journalisme si media especially ba nga dugg ba sos tey nii sos sosan tigi bi nga xam ne tey sa anniversaire moom nañoo celebrate six six anniversaire am tey lan moo la lan moo la lan moo la duggal si journalisme lan ko ko mën a wax ne moo la inspiré ba nga dugg si journalisme ak bi nga benn journaliste en media houses nga liggéeyal bi nga duggee si journalisme ba tey
waaw bon boo gisee ma dugg si journaliste dama gis ne tey si Afrique wala si Sénégal gi ñu nekk maanaam am na lu bëri loo xam ne nit ñaa ngi koy gis waaye amoo droit pour wax si boo nekku journaliste politico il faut nga nekk politicien te boo nekkee politicien itam dafa am mbubu yoo xam ne boo ko solee da nga mën a am droit wax ko boo nekkul journaliste am na loo xam ne ñemewoo koo wax boobu yàlla dimbale ma may jàng ma ne nag attends man vraiment gis naa journaliste yi di def liggéey bu noble ñoo xam ne dañuy def investigation xam naa français yi dina la xaw a kii maanaam dañuy gëstu. ay journaliste yoo xam ne dañuy gëstu lépp lu ñuy joxe parce que xibaar boo koy joxe dafa war a wér kan bala nga koy joxe. ma gis gëstu boobu ñuy def mu neex ma lool ma ne daal xaaral mosuma am mbokk bu nekk journaliste nag mosuma am mbokk bu nekk si média. ma ne xaaral man lii neex na ma si laa demee gis benn kilifa bu ñuy wax Moussa Diallo mu yore benn rajo bu ñu doon wax Ferlo FM rajo boobu noonu bi ma demee wax ko expliquer ko ko mu ne ma ah man de lenn laa bëgg bu dee pour l'instant mun nga ñëw def gannaaw yaa ngi si formation mun nga ñëw def li nga xam ne moom moo nekk si rajo bi ngay animé ndax nga gën a mun a miin animation loolu moom moo indi turi di jëmat bi ma nekk si nekk si nekk si ba benn jour gannaaw tey am na loo xam ne boo ko bëggee def te amoo xam-xam bi mënoo ko def ma ne nag damay jàngi bi ma ne damay jàngi ma wax ko jiboo lay dikka bu baax bi bi ma ko ko waxee yàlla ndem si yàlla yàlla ko yàlla xare aj mu ne ma ah Njaay man de mun naa laa am ñu ma la booleel pour nga pour nga mën a mën mën a def mais nag yow fi nga toll nii man j'aurais préféré que nga dem si école yi def la formation am diplôme bi mun a def leneen ak leneen ak leneen yàlla def sama premier sens benn projet bu ñuy wax Informorak Informorak daf doon former les radios communautaires si wàllu communication léegi yàlla def ñu sélectionné ma ma def si tey ki nga xam ne moom mooy tax yore réseau des an des des des des radios des radios communautaires moom moom moom moo ma njëkk a formé ba yàlla dimbale ma sax am na benn émission bu ma def si séeréer rajo moom laa demoon pour def ak moom waxtaan woowu jeetaay boobu ba mu ne ma waaw sama taalibe ñëw di may def si émission ma ne ko mu ngi noonu. yàlla def nag vraiment ñu dem si dem si gëstu si ba yàlla dimbale ñu tey jii nii ñu am nag li nga xam ne moom moo nekk rôle journaliste ñu quitté foofu noonu jóge foofu def rajo dunia bi ñu ñëwee dunia aussi li ñu fa yóbbu woon mooy que ne ñu gën a am tuuti loo xam ne. Google Street Post yaa ngi dog tuuti yaa ngi dog tuuti di mag ok waxal waxal yaa ngi doon dog tuuti wante mun ngaa continuer ma dégg ok DJ Mag ok am digi na dañ lay exploité dañ lay exploité da ngay dem foofu ngay jox hello hello yaa ngi doon dog tuuti xam ma xam ma nu maa def xam ma ñëw am xool yaa ma dégg fu nekk nii
waaw maa lay dégg bu baax ah xam nga fu nekk li ñu ñëw nga leer continuer please yaa ngi doon wax lifin naka sa am sa lifin bu waaw sa fi ne ko continuer
waaw ma ne man ma ne daal loolu daal moom moo ma dugal si ma dugg si média yi parce que média yi boo seetloo nag li si gën a bëri ñoom dañ lay liggéeyloo rek liggéey boobu noonu aussi tam dañ ciy am ay jafe-jafe jafe-jafe yi mooy que ne dañ da ngay def lu nekk condition yi nekk dañ koy dund si si rajo wala si télé bi mais ñoom au fond duñ la bàyyi xel duñ la respecté duñ la jox rôle bi ñu la war a jox si laa quitté nag Dunia FM ñu am benn waay yoo xam ne dafa bëggoon pour ku koy defal revue de presse di koy présenter journal après si laa dem nag fee nga xam ne moom moo nekk Convergence FM di fay def émission di fay def ay journal di leen def revue de presse ma pare foofu noonu seen vision point com aussi ñu yittewoo ma ma dem foofu noonu di leen di liggéeyal bi ma paree foofu aussi itam si nag laa dem si Africa 7 radio et TV nekk fa mais tey ma wax la loo xam ne mosuma ko wax si benn rajo gis nga Africa 7 radio et TV xam nga lan moo fa tax ma jóge fa. moom mooy que ne dañ ne man damay maanaam séeréer rajo moom laa gën a teg si ko ko ne ñoom seen seen télé ak seen rajo.
ah léegi bi ma ko waxee ma ne leen ma ne leen séeréer rajo mun naa ma ne que man dama am droit def si lu nekk xam na ma tax mun naa ma ne que yéen télé bi ma nekk semaine bi mun naa ma nekk ñaari heure ngeen ñaari waxtu ngeen ñu jox si semaine bi na ma waree dimbale sama mbokk séeréer yi si communication dimbale wu ma ko tey ku ku bugg a def benn publicité fii nii sax ngeen ne ko na na na fay bu ma buggee dem pour jëli leneen ngeen ne loolu ki lii ak lii ak lii ak lii la man leen nag man lii may yëngatu dama si war a jàppale sama mbokk yi bu ma gisee séeréer rajo tey jii nii mu ñuy gunge si ay projet séeréer rajo tey jii nii muy jëf ay émission yu am solo yoo xam ne mu ngi doxal culture séeréer même bu nekkee ne dañ may dàq du ma du ma fayeeku sax man jaral na ma ko ma def ko ñu dem ba si kanam ñu ne waaw bon séeréer rajo bokk na si waaye am na beneen rajo boo xam ne kooku yow yaa ko dimbale ba mu am fréquence yaa ko dimbale ba mu lii te waroon ngaa dimbale rajo bi ma ne ko bu ngeen bëggee luy jàllale seen rajo yéen yéen a koy liggéey pour wax la ne la rek Tamsir des fois dafa am yu bëri yoo xam ne dañ koy dund si wàllu média moo tax man yàlla def vraiment séeréer rajo dafa am fu ma ko teg du question de xaalis du question de leneen mais liggéey bi muy liggéey si boppam di dimbale askan wi di leen di gunge di leen di gën a teg si yoon loolu moom moo gën a tax tey jii nii séeréer rajo bu yeboo man naa toog di nelaw ñeneen mag bu séeréer rajo rek loolu rek doy na ma ci tënk loolu la Damsir xam naa ne ab journaliste moom boo ko invité dina wax ba xaabaabal.
dé loolu ba baax na loolu baax na wante li nga li nga wax ne fi fi nga teg si la rajo fan lañ la teg yoo tamit nit te xam nga wax ci nii rek xam naa ñun ñun suñ ko ñi nga xam ne ñu ngi suñ biir xam naa dinañ xam. ñi nga xam spécial ñi nga xam ne yàgg nañ dañuy déglu dinañ xam wante ñi nga xam ne ok lii ji mag mu doon ko ok mu ngi dellusiwaat na ñi nga xam ne yàgg nañ dañuy déglu dinañ xam wante ñi nga xam ne am xam yàgguñ dañuy déglu DJ Mag duñ mën a wax di fi DJ Mag te tudduñ kii naka lañ koy tees sa xaaral mu ngi nekk ay dem ak ñëw ok yaa yaa yaa ma dégg yaa ma dégg DJ Mag hello DJ Mag yaa ma dégg ok xaaral ma try ma connecté waat ko mu ngi connexion am baa ngi def xam nga xam nga lu ma def xam nga fay fii nii ma close ko fii ba pare ma ñëw xoolati ko yenn yi xam nga moom mu ngi Sénégal man maa ngi ga maa ngi Angleterre fii nii xaaral ma send naa ko amati xam ma xoolati ko yéen waaw ci foofu connexion problème bi dafay am yenn yi su nekk yaa ngi si effet naka ñoom spécial gars yu foofu nu nekk si foofu nu Sénégal xaaral ma send maa ngi ko xool de. xaaral ma di film ma seen anything waaw lu ma doon wax rek li fi naka lañ koy tees am kii naka lañ koy ñun kii jokkal la ba ngom hello DJ mag dugga dugga nga yaa ngi maa dégg fu nekk ni hello Tamsir.
ok waaw ok baax na fu nekk du dugga nga waaw li lu mu doon wax rek li fi nekk si mbiru.
ma lay dégg bu baax baax waaw mu ngoog mu ngoog lu ñu doon wax rek si mbir yi si njëlbeen balaa di jëm ak di koot xam nga mu ngi Sénégal ñoo ñu ngi Angleterre fii nii so yéen ay problème bi dafay am wante ñu ngi jéggalu si loolu noonu lu lu lu lu di jëm ak doon wax rek man man xam ma dëgër ma dëgëral ko rek ñun te duñ mën a wax DJ Mac ak Séré Dio te tudduñ am Jokal Laba Ngom suñ duwee Jokal Laba Ngom xam ngeen ne yàgg ngeen especially suñ old listeners si suñ yàgg li di déglukatu yàgg yi xam ngeen ne am Jokal Laba Ngom moom moo nekkoon suñ am am music manager bi fii Séré Dio moom moo ñu introducé si si DJ Mac so bu mu ñu introducé si DJ Mac ba tey kanam bi nga xam ne moom la ñu DJ Mac wan moom benn kanam boobu rek lañ gis si moom liggéeyam xam ngeen ko yéen di ngeen ko day gis soo ci naka di déglukati rajo yi fii am na am na programme yu bari yu mu def fii di si rajo gi fii ba tey def ak events yi nga xam ne suñ jëfinee ma ko téléphone na ko DJ Mac demal rek mi ko fi mi ko mi paak bagage am rek daw dem foofu yéen ko am defal ñu coverage so ñu ngi koo gërëm bu baax a baax a baax a baax di jëm ak si sa liggéey fii sa bés bi fii naa dugg si ñëw waxtaan sa anniversaire bii nii ba peut être yi gërëm tamit suñ duwee mooy di mooy di mooy am jokkal la ma ngoom ki nga xam ne moo ñu introduce si DJ Mac te bi nga xam ne bu ñu bu ñu introduce bi DJ Mac daal moom li fi naka am li fi naka meruñ si daal ñun meruñ si kontaan kontaan si liggéeyam so ñu ngi ko ñaanal si bésam bii nii nga xam ne moom mooy anniversaire six anniversaire am 2015 moom la doon wax noonu rek si ak si baati si baati français si la sos am Sokone TV so li fi nag waaw so li fi nag so tey tey la am six anniversaire tey la célébré six six anniversaire Sokone DJ Mac léegi naka lañ koy si anniversaire bii moom lan nga lan moo fay xew tey moom lañ boobu lañ bëgg a xam ak kan moo fa nekk ak ñan la fa ñëwagum ak lan moo fay xew TV si fan yi te nit bi bi lay bii di bii di sa premier time nga def en anniversaire bii nii yàgg yàgg nga di ko def.
waaw tam si biir anniversaire bi nag dafa gën a neex. dafa gën a xumb dafa gën a bëri doole dafa gën a yomb si man ndax anniversaire yi ma doon def nag mosuma am koo xam ne dina ma jàppale avant anniversaire bi. waaye séeréer rajo Tamsir ak ñi mu àndal tey dimbal te ngeen ma ba man ma mun a teel a jël endroit yu bëri moom muy hôtel yeeg.
yaa ngi artiste yeeg ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne yàlla ak yow mii di wax ak man yaa ak bés bi bu jotee ñu soog a ñëw jàppale ma mais tey sant yàlla bu baax ma am nag ñoo xam ne ñoo xam ne jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax a baax muy yow numéro un beneen bi tey parrain bi di layti seen yegg si na ba xéwlu na ba caravane bi yóbbu na ko lu tolloog fukki moto tey ñoom ñoo ko jiital di ko yóbbu si cérémonie ba.
ndeysaan mais aussi ma am ay directeur Africa 7 bi nga xam ne moom moom moo xeexoon ak man si rajo ba ba génnee ma fa tey dafa ñëw sax si événement bi moom si boppam tey dafa ñëw si xew bi. waaw moom ñëw na mais aussi journaliste bi ñuy wax ki nga xam mooy. Abdou Gueye moom mooy def panel bi maanaam wàllu communication la ñu wax maanaam dañ ne.
Abdou Gueye Abdou Gueye communication sociale. waaw Abdou Gueye waaw. communication sociale dafa am solo maanaam nit ñi waxtaanatuñ jokkoo wantuñ moom moo tax problème yu bëri di am léegi nag loolu nag lañ war a waxtaanee tey jii nii bu ñu paree nag cérémonie bi ay kilifa yu bëri danañ ko fekkee lu si mel ni aussi maanaam tey am na benn dëkk boo xam ne yàlla dimbale na ma ñaari oto la ñu luy ne indi ko si événement bi.
ndeysaan te loolu lu rëy la lu rëy la lu rëy la si man artistes yi ñëw nañ ñoom Fane Jambal Coor.
ay waay ñoom capitaine ñoom Selbe.
Selbe Diouf ñoom Jokke Laba Ngom ñoom ñëpp déplacé wu na ñëw nañ mais le ministre le ministre bi nga xam ne moom moo nekk maire fii nii muy Abdoulatif Coulibaly. kooku barki démb la ma woo avant événement bi dama ah sama kii man de dama la dama xawoon a kii waaye nag incha allah rabi sama loxo dina ñëw balaa jant bi di so mu yónnee ma ko kon à part yow Abdoulatif Coulibaly moom moo jàpp si mbir mi vraiment lay di seen aussi defaral nañu ay t-shirt déplacé wu na ñëw na si tënk lii daal moom mooy nekk li nga xam ne fi Demba Seen itam yegg si na Demba Seen mu ngi fi.
waaw nii may waxee ak yow aussi. ah Jean Michel artiste bu mag boobu comédien bi nga xam ne si télé yu bëri mu nga fa. moom mu ngi fi Jean Michel mu ngi fi ku baax moom itam artiste la mu ngi fi ak aussi Systemia moom dafay def one man show moom tam déplacé wu na de Kaolack moom beneen xaritam ñoom itam ñu ñëw pour xew bi car macha allah daal am nañ yaakaar ne ren moom mooy dàq ay kilifa diine itam déplacé wu na ñëw sëñ Abdou Karim bi nga xam ne moo nekk pakala kilifa gu mag. koo xam ne dafa déplacé mu ne dara dérangé wul ko lu dul bés bi dana ñëw ak Serigne Abdou Akim bi nga xam ne aussi mu ngi dëkk Ngungul moom itam déplacé wu na ñëw ak directeur yi ñoom Mbaatu FM muy Moussa Mané sama publicité daf koy jël di koy teg si rajo bi démb la ñu invité rajo ñu def émission publicité wax lu ñu neex si rajo si plateau rajo bi ak SKF ñooñu ñëpp tey jii nii ñu ngi si salle bi di def man nii ni may wax yow oto bi jël si na ma sax pour ma dem mais gannaaw yaa ma téye rek moo tax ma.
duma la yàggaat tey duma duma duma duma yàggaati di si xam naa xam naa xam naa ne jéem a xam naa xam naa ne sa loxo ngi téye tey moo tax wante maa ngi laa gërëm bu baax te gannaaw yaa ma téye si
maa ngi ma jiw bi moom moo tax.
ok ah li fi naka lañ koy wante gis nga DJ Mag xaama wax fii nii rek xëy na ñoo xam ne duñu duñu duñu duñu duñ xam li fi naka DJ Mag dafa neex a jàppale koo xam ne koo xam ne koo xam ne li fi naka lépp luñ wax si mbiru cosaanu séeréer si mbiru si mbiru culture séeréer mi jóg si def si lum si def lum si lifin lépp luñ wax si media mi jóg si def si luñ si lifin lépp luñ wax xam ne xam dañuy wax si mbiru séeréer artiste yi mi jóg si liggéey si liggéey bu rafet kon nag kooku su nekkee am na am na tey tey bésam la. comme ñëpp si war a jóg soo ñëwee naka moo tax li nga wax ni ñoom ñëpp ñu jóg ñëw ñëw fekk la foofu gars yi seen rajo yi ñoom ñoom jokkal la ma ngoom layti seen demba seen ak suñ séeréer artistes yi ñoom xaati ko li mari ngone joon ak yooyu noonu gars yi ñi nga xam ne mënuñoo ñëw sax ñu fi naka ñu ñëw ñu ñëw ne dara oo ak yi ay juji naka lañ koy teel sa am sëriñee ay politiciens yi moo tax bettuma ñoom ñëpp ñëw te teewu sa bi loolu bettuma ni te noonu nga mën a mel ni nii nga mën yaa yaa nga yaa nga si liggéey bi nag yaa nga si liggéey bi di ja di jàppale askan bi moo tax lii bettuma soo ñu ngi laa gërëm bu baax a baax a baax a baax wante lifi naka lañ koy tee sa am sa sa lifin bi yow su ok yaa ngi doon wax lifi naka soo lii mu anniversaire bi def ba tey ba tey tey si guddi lay jeex ndax lan lan ngaa defi nag lan lan nga programmer event bi pour moom mooy xam tey si cérémonie bi.
waaw waaw xam nga xam xam xam nga instant yi nii tabaski bi dafa jege si te nawet la ñu nekk. loolu moom moo tax ma ne ñaari parti laa koy def. tey li may def mooy damay def cérémonie bi panel bi dix-neuf heures maanaam sept heures si ngoon mu ne ma jël ay doomi Sokone yi nekk fii man ma téye leen former leen nan la ñuy vidéo nan la ñuy filmer nan la ñuy monter ba nga xam ne aussi danaa ut ay partenaire pour nag ma am benn siège fii Sokone nga xam ne Sokone TV dafay nekk fii nii man tàggat ay xale yoo xam ne ñoom ñooy continuer liggéey ci nga loolu la tey moom dix-neuf heures rek la ñuy arrêté la muy sept heures bu defee ñii ñibbi ñibbi man ma préparé dellu Dakar parce que suba suba dama war a liggéeyiwaat dama nekk si tournée. loolu daal moom moo nekk li nga xam ne daal moom la ñuy kii tamsee waaw.
waaw jërëjëf lëfi naka DJ Mag soo li nga ñi nga jëw jixi ne waxtaan waxtaane ñëw fii nii xam naa ne sa loxo jàppale tey man maa la téye rek foofu noonu du ma danaa danaa la teel a bàyyi wante ñi nga xam ne lëfi naka ñu ñu bëgg a xam naka la ñoo contacté si yow sa Facebook sa mi sa social media mu nga le bu nga wax fii nii social media sa social media Sokone TV ak yooyu noonu ak yow sa so social media yow sa personnel social media mu nga ko wax fi koy fe gars yi dégg ko ñu mun laa xam naka lañ la follow di la partager ak yooyu noonu waaw d'accord léegi daal comme damay wax askan wi yëpp képp koo xam ne yaa ngi may dégg si séeréer rajo man ndaw laa boo xam ne agressé wu ma ndaw laa boo xam ne doxuma di triandé ndaw laa boo xam ne aussi tam dama jëriñ saskan ma tànn li nga xam ne moom mooy la communication tey yittewoon naa bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bu ma ko yàlla mayee am des partenaires yoo xam ne dina ma permettre ma am sama télé bopp boo xam ne dinaa mun a wone lépp lu ma bëgg a wone maa ngi si maa ngi jéem mais boo seetloo tey matériels yi matériels yi ngay utiliser rek dafa métti pour nga am ordinateur bu baax mooy loolu loolu nga am ay ay ay appareils yu baax yooyu filmer dafa jafe beneen bi pour ngay dem ak a ñëw dama ka ñëw xam nga nit ñi buñ la soxlaa soxla la Sokone wala soxla la Tamba nga mën a taal sa oto wala nga taal sa moto dem déplacé wu rapidement ñëw dafay xaw a jël temps moom moo tax loolu daal moom moo nekk suñu problème di leen di di di wax ne daal côté boobu noonu rek daal moom mooy mooy.
hello ya yaa ngi dog de hello yaa ma dégg DJ Mag hello hello
waaw waaw man maa ngi dégg waaw.
ok all right ok bu foog na nga dem loolu loolu loolu loolu daal la ñuy wax parce que li ñu bëgg mooy ñu am suñu siège social. parce que boo seetloo man Dakar laa nekk di def foofu lu mais Sokone bu ma sañoon dinaa fi am même bu nekkee ab benn studio la boo xam ne damay defar la nga xam ne dañ fi mun a def ay émission en live def lu bëri am ay caméra ak yooyu yooyu mooy suñu yéene loolu nag yaakaar nañ ko si suñu bopp à cent pour cent ñu ngi koy dox aussi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk si média aussi te bu ñun aussi ñu ngi taxaw képp ku ñu yiitewoo daal da ngay dem tapé Sokone TV da nga gis benn logo boo xam ne euh, maanaam ab kaal la boo xam ne mm, boo ko gisee rek da nga gis Sokone TV bi Euh, aussi suñu page Facebook euh, boo defee mag rek euh, euh, da nga am lépp loo xam ne euh, suñu Facebook la si tënk daal loolu rek la dam si di lay sant di lay gërëm di gërëm waa Séeréer rajo di lay gërëmaat bu baax a baax a baax nag aussi si ni nga ñu jàppale te du man kese du man kese du Sénégal rek fépp fu ñu la yittewoo rek yaa ngi si dugal sa loxo di liggéey jërëjëf ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax.
jërëjëf DJ Mag jërëjëf so Sokone TV S O K O N E TV T TV and eh, Mag bu moo wax foofu noonu Facebook M A C di ngeen ko fa gis foofu noonu DJ Mag DJ Mag ñu ngi laa congratulé taat félicité si bés bii nii sa yaa nga xam ne yaa ko moom ñu ne ñu ngi laa ñaanal bu baax a baax seen rajo fii nii ak seen ressource centre nekk fi Angleterre la bés bi li li nga si bugg a yaa ko yaa ko xam yàlla la ko yàlla may yàlla jàppal la sa liggéey bi nga toog bay adi di célébrer anniversaire ay ati ati ati ati at ñu ngi laa gërëm di la sant di la ñaanal jërëjëf DJ Mag um, so mo- moom moo nekk noonu jërëjëf DJ Mag jërëjëf um, DJ Mag moo nekk noonu moom moo nekk suñu lifin bi waaw jërëjëf ok thank you um, DJ Mag moo nekk noonu moom moom moom la moom laa doon waxal nii sànq um, si lifin naka lañ koy teesa um, b- bàyyi naa ko bi dem fu mu nekk nii ah, xam na loxo ma yéen a ngi ko dégg loxo ma ngi téye téye foofu noonu moo tax dafa joxe rek ju fo- foofu ne foofu mi ñëw rek dugg fi waxtaan ak ñun so ñu ngi ko gërëm bu baax a baax di ko ñaanal si bésam bii nii man la Tamsir Diouf yéen a ngi doon déglu seen rajo cosaan programme bi dañoo wax cosaan séeréer programme jërë ngeen jëf ba beneen yoon